mbokk yi ak xarit yi ñu ngi am mbégte ak kontaante di tàmbalee waxtaan wi ci li nga xamante ni bii mooy kàdduy Barthélemy Diaz mooy li may njëkk a jiital tey ci li nga xam ni moom la ñuy wax des émissions parce que balaa ñoo ñëw ci li nga xam ni mooy li ma jambal dëggal ay kàdduy Barth yan kàddu mooy Barthélemy Diaz yëkkati ñu déglu kàddu yi soog a ñëw wane li nga xam ne mooy ni Madiambal Diagne wax je en prie. man jàppale naa fi ñit dimbali naa fi ñit defaral naa fi ñit lu ngeen xam ne ni maa ngi jógaru ci kàddu yi su ma yoon tegoon tey loxo cour d'assises laay dem te mu ngi may dégg te soxlu ma indi ay preuve moom xam na man xam naa te yàlla xam na fa rek laa yem ci wax ci ki monté photo bii de moom ak majambal sore wuñu gis-gis parce que Barthélemy nit la wax dane jàppale na nit mais kii moom monte na ko mook Ousmane Sonko maanaam dafa mel ni mook majambal ñoom ñoo bokk gis-gis ci li nga xamante ni bii eh, mooy ni mu ko monte parce que Barthélemy dane jàppale naa fi nit tuddul tur waaw jàppale naa fi nit tuddul tur lu mel ni daloon na ki nga xam ni moom lañuy wax Cheikh Yérim Seck mi ñu bëggoon a joxoñ nañu Ousmane Sonko lay wax te Barthélemy tuddul tur Ousmane Sonko ba tey génnul weddi waxi Barthélemy ngir ñu koy joxoñ naan ko yow la jàppale naa fi nit la wax kon waa ji monté photo bi ak wax ji muy waa ji nekk fii di topp moom moom moo wane gis-gisam ci montage bi waaye bokkut ak man li nga xam ni moom laay wax kon montage am bi moom la engagé ba engagé wu ma dañuy déglu ki nga xam ni mooy Madiambal Diagne Madiambal yëkkati li nga xam ni mooy ay kàddu ginnaaw bi Barth waxee ñu déglu kàddu yi nga xam ni moom la ma jambal Diagne yëkkati ca émission Papa Ngagne Ndiaye je vous en li Barthélémy wax dara ay fen amu ci li Barthélémy Dias wax lépp dëgg la ci sama xam-xam bi ma ci am te ba ko Barthélémy waxee ba léegi déggoo Ousmane Sonko àdduwaat ci ba ko Barthélémy waxee ba léegi déggoo Ousmane Sonko àdduwaat ci li Barthélémy Dias wax ma baamtuwaat ko lépp ay dëgg la benn fen amu ci te Ousmane Sonko du jëlaat kàddu taxaw fii ni Barthélémy waxul dëgg parce que aussi xëy na Barthélémy am na lu mu wax mais am na ñeneen ñu xam leen mhm. am na ñeneen ñu ñu na ñeneen ñu ñu waxal aussi ah donc kon aussi franchement dama lay waxal dal la ni la Barthélémy li mu wax te nga ni dëgg la hmm. dafa wax ni lu jëm ci dialogue bi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal dimanche je pense xam naa dinañ ci ñëw pour am ci sa sa analyse analyse euh, Ousmane Sonko bokk na ci ñi nga xam ne waxoon na ci ak moom ba mu jox ko ci kàddoom pour bokk ci boobu dialogue ndax loolu itam da nga koy dëggal yow. dama la ni li Barthélémy Dias wax. lépp dëgg la ku bëggoon a dialogue Ousmane Sonko ci jiitu ku bëggoon a waxtaan moo ci jiitu franchement xam nga wax ñaara ko seq muy Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko Barthélémy li mu wax bu sañoon du ko wax parce que wax na ni dafa am bàmmeelu biir am na nga xam ne affaire état doo ko wax ci biti mais mënu ko woon a bañ a wax ndax Ousmane Sonko da koo bëgg sosal moo tax mu bëgg a wan Ousmane Sonko ni ko nag li nga ma bëgg a sosal nag dama lay wax li nga xam ne moo ci xew est-ce que am na occasion bi. pour tontu ci. Ousmane Sonko lu ko jàpp occasion Ousmane Sonko chaque jour mu live chaque jour mu tweet chaque jour mu def déclaration. fu mu bëgg a defee amee occasion am ko. ok kay biñ occasion bi mu amul kay mooy occasion de wuyu tribunal bi ñu ko oo. mais argument bi mu ci avancé. mooy tuddul woon sax Barthélemy bi muy wax. soo déggee daf ko ignoré. parce que daf ni euh, daf ni euh, su su may wax ak moom daf may enregistré. xam naa ni daf may enregistré mais la ma bëgg mu dégg ko lay dégg la ma bëgg mu wax ko Macky Sall la koy wax. man li ma dégg. te ba pare mu waat ko waat ko nag. aussi waat ko ma xoolal. waaye gis nañ fi ku waat alxuraan fii ci seen plateau bi ni Ousmane Sonko musta dem suite boote wala xamul aji saa. gis nañ na mujj gis nañ fi kenn ku waat ci leneen ak leneen kon nag nañ def ndànk ci waat yooyu. Mhm. parce que nit ki bu demee bay waat rek jàpp nañ xëy na li muy wa ndax bëgg na mu wóoram déet kon loolu mën nañ cee tey mhm. ñaareel bi ba mu waxee dani kilifa bu bokk bennoo yaakaar dem na ci Macky génn wax ma lii bu dee benn kilifa moo demoon ci benn bokk yaakaar ba de Barthélemy jàpp ni moom lay waxal Barthélemy génn ni ko hey ba may daata dem ci Macky Sall naa la ko yëgal naa la ko yëgal naa ko Khalifa Sall lii laa waxanteeg yow bu ma génn ci Macky wax naa la ko pourquoi kon ñaari ñoo ñu seq wax ci Ousmane Sonko cokkaas Barthélemy tontu tontu bu leer nañ Ousmane Sonko ni miix lu Ousmane Sonko du ko weddi kon kay dañu jàpp ni que nag Barthélemy nag la wax nag dëgg la nañ ko ko ala yëwan nañ ko bàyyee waxam jooju ci ñaari wax yooyu est que euh, diggante bi mënu fa jaare yàqu bon enfin en tout cas xaw ma dina yàqu ma waaye xajam na politicien nag moom mën nañoo waxante lu ne defante lu ne ëllëg ñu àndaat mel ni mburoog soow dëgg dëgg gis nañ ko fi du benn du ñaar ah. waaye daf fi toll nii jamono ñu toll nii moo xajam na moom wax dëgg yàlla alors gis ko fi ci diggante Idrissa Seck ak Macky Sall ba mu mujj bi mbokk yi eh, ñuy amaat mbégte ak kontaante xam nga wax dafa xaw a doy waar quoi gis nga nit bu yëkkatee ay kàddu wax euh, dafa xaw a doy waar pare saa yi nit ñi dañuy waxee selon ni nga xamante ni bi noonu la ñu bëgg a déggee moo tax pare saa yi di nga expliquer nit sax ba nga defee ne comprendre na te fekk ne jegewut a comprendre li nga koy wax c'est parce que déggeewul fi nga xam ne foofu ngay waxee loolu day faral di am. pareen saay nit ñi bu ñu toogee ci plateau dañuy am parce que Papa nga njaay wax na ni euh, Ousmane Sonko dane su may wax ak moom Ousmane Sonko waxut su may wax ak moom Ousmane Sonko daf ne léeg-léeg may wax ak nit mu leer ma ne ma daf may enregistré waxut su may wax ak moom parce que boo déformé wax ji rek ne su may wax ak moom dafa mel ni léegi yaa ngi orienté mbir mi yow di ko jëmale fi nga ko bëgg a jëmale te kiy wax daf ne su may léeg-léeg may wax ak nit noonu la ko waxee donc il faut delloo wax ji ci li nga xam ni noona la ko waxee parce que boo ci sopparñee tuuti rek mën nañu jàpp ni garaawul te fekk ne mën nay signifier leneen loo xam ni bokkut ak li nga xam ni mooy sensu mbir mi euh, Madiambal taxawaay bi mu taxaw c'est que Madiambal parfois day méngoog turam dafa ma nuru grand yooyu nga xamante ni bi dañ daan ëffal ay booy pour booy yi laalante c'est que loolu lay nuru ci mbir mi parce que boo seetee li mu wax maanaam moom dafa génn pour pousser Ousmane ko pour mu tontu Barthélemy bu ko defee Barthélemy mën a génnaat pour tontu. maanaam pour ping pong am entre ki nga xam ni moom la ñuy wax Barthélemy ak ki nga xam ni moom la ñuy wax Ousmane Sonko loolu la bëgg a wax lu moo tax ki nga xamante ni kii mooy Madiambal daal di waxee ni mu waxee mais man lii sama problème te defe naa ni war na nekk problème mu Barth le fait que Madiambal rangé wu ci côté Barth rek loolu baaxul ci Barthélemy parce que bu ñu demee dafa am nit ñoo xam ni. Euh, bu ñu rangé woo ci sa côté booy boo xam ni ñu bari ñi nga àndaloon dootuñu la ñeme te loolu je pense que Madiambal euh, nekk na ci genre nit ñooñu ci jamono ji ñu toll nii que ni Barthélemy bu fekkonte ni tey Madiambal dafa faral Ousmane Sonko dana jaaxal Sénégalais yi léegi la fait que mu ànd ak yow donc di nga jaaxal Sénégalais yi. lan moo xew ci diggante bi ba tax majambal jàmbal wu ci sa ginnaaw ak tamit lan moo xew ba tax majambal jàmbal yëg li xew yëpp majambal jàmbal yëg ko parce que ma jàmbal ni mu waxee dafa mel ni ku yëg te yëglewul te mu nekk koo xam ni journaliste la buy yëg di yëgle waaye diirab nga nekk ci loolu yëpp nga xamante ni bi Madiambal moom yëgoon na ci kaw ni muy waxee dafa mel ni ku yëgoon yëf yi ni muy demee mais lu ko tere woon mu yëgle loolu aussi tamit ay question la yoo xamante ni nit ñi faaw ñu koy poser pour mën a xam ana lan mooy li xew loolu c'est très important parce que Madiambal yëg na waaye yëglewul li tax ma jël vidéo bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko moom la Barthélemy wax ma choisir vidéo dafa am leneen loo xam ne Madiambal daf ko wax ci biir euh, kii bi wane ni Barthélemy ak ki nga xam ni moom la ñuy wax Ousmane Sonko génnoon nañ joxe woon na date bi parce que loolu mi ngi woon ci biir vidéo bi mais le fait que euh, kiiwuñu ko loolu mooy kii bi mais nit ñi seetaan émission bi wala ñi nga xam ne jot nañ extrait yi dinañ xam li may wax parce que nee na mi ak Ousmane Sonko ànd nañ dem Guinée Bissau joxe na date yeeg yooyu yëpp bi bu nee def naa feek nit loo xam ne suñ ma jàppoon cour d'assises laa jëm Madiambal ñëw jox ñu wax jooju daldi ñuy xamal nañu Ousmane Sonko ak bart génn nañ période sàngam dem Guinée Bissau est-ce que du loolu tamit dafa ñëw ngir dëggal waxi barte yi nga xamante ni bi moom la wax yooyu yëpp ay wax la yoo xamante ni jar na def ay taxaw seetlu ngir jéem a xool xam ana yëf yi nan la kii parce que beneen saa yi nga gis ni ñoom Madiambal dañuy ñëw nga defee ne dañuy wax ci actualité kese fekk waxuñu ci actualité kese mais dañuy wax am aussi tamit yeneen yoo xamante ni bii bëgg nañ ko dëggal tey pour ne waxoon naa ko te fekk ne xamoon na la war a xew mais nag il faut mu génn. pour wax wax joo xam ne mooy indi ëllëg ñu ne waxoon naa ko te fekk ne xamoon nañ ni am na fu yëf yi war a jëm seen waxoon naa ko jooju ñenn ñu bari dañ naan ah waxoon na ko de amoon na gis te fekk ne am na loo xam ni moom lañ ciy déglu ni parce que bu nit ñi accepté que nii loolu mu wax am na rek bu le fait que Barthélemy génn na wax na te tudd li mu def defoon te ba léegi dégguñu procureur woo ko laaj ko lan la defoon parce que fi réew mi tool defe naa ni wax jooju mu wax war na koo leeral lan la ba noppi majambal ñëw daal di wax ni Barthélemy du ma weddi ànd na fi ak Ousmane Sonko génn nañ demoon nañ Guinée Bissau tel kii te boobu defe naa ni Ousmane Sonko mi ngi ci li nga xamante ni bi moom la ñuy wax contrôle judiciaire mu wax wax jooju mel na ni kon ma ngay dëggal pour man kàddu yi nga xam ni moom la Barth doon wax doonte Barth tuddul nit waaye bu Madiambal ñëwee day mel ni euh, Barth bi muy wax dafa joxoñ comme li nga xam ni moom la euh, ki nga xam ni mooy Abdou Top di mu def sànq daal jël joxoñ ba daa dee li nga xam ni mooy Ousmane Sonko parce que ñëpp xam nañ ni doonte doo ko tudd waaye am na waxam fu mu jëm mais est-ce que du Madiambal loolu la ñëw ngir fas yéene ko dëggal loolu aussi tamit di mbir moo xam ni mbir mu jara bàyyi xel la